mbokki internetu seen acti tv ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen wax ni rek dal leen ak jàmm fii seen chaîne youtube seen acti tv tey nag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 te nag cheroon na ba jéggi dayoo ba tax na ki leen nag di njiitu réewub Sénégal di Macky Sall jot na wàññi li nga xam ne moo di soble di ab fer di diwlin tamit wàññi na ko li nga mel ni moo di suukar rek mburu wàññi na ko ba sax nag jox na leen ab numéro vert rek bu ñu demee ci bépp jaaykat boo xamante ne dafay jaay yi lépp euh, produit yu ñu fi jot a wax rek boo gisee nii rek wàññi bi moom appliqué wu ko rek da ngay daal di woote ci bi lépp numéro vert bis boo si service euh, de sécurité buy contrôler bi lépp wàññi li ni mel nag ñenn ci Sénégal yi nag rafetul nañ ko waaye ñenn ñi rek dañoo jàpp ni rek kii di njiitu réew Sénégal defu fi dara parce que nag ay juróom ay fukki dërëm wàññiwul parce que jàpp nañ ñi rek li fi nekkoon bu njëkkoon moo tax ne jamono ji du ñuy dund ndax nag wax ko nag ak dee moo si yem waaye nag Sénégal dund fi rawatina ci capitalu Dakar bi jafe na torop ndax li nga xam ne moom la ñuy soxla di ay denrées na waar nag ba déggi dayoo waaye nag dañuy njaax ñi réew mi rek mu gën a wàññi li lépp dund li may wax nag du samay kàddu wax la ci ñenn rek ñoo xamante ne ñoo a réagir ne moo di lépp publication boo xam ne kii de njiitu réew Macky Sall moo ko daal di fësal waaye bu ñu jugee foofu dañuy desate ba tey biir Sénégal waaye nag dañuy daal di ci langue politique ak seeraayu dund daal dem jëli ki nga xam ne moo di ab joué katu théâtre parce que nag ku ko xam xam ne Daba Ndiaye mi ab actrice la woon nekkoon ab nekkoon doon joué foofee ci série boobu ñu doon wax bala ma see sañse moom nag di Daba Ndiaye nekkoon fa ab secretaire ci bilépp série fan yee ci ginnaaw ab moodu moodu bu nekkoon foofee ca États-Unis daf ko daal di takk moom nag ba mu ko takkee jotoon na koo jox ci lu tollook trente millions may ko Range Rover waaye nag sëy bi nag dafa daal di tas bilépp sëy nag tas na ñu tamit yëg nañ ko yëgee nañ ko ci réseau sociaux yi ak yenn rek ci ay interview yoo xamante ne jëkkër ji woote na si ay émission moom nag ñenn ci ay internet ñenn ñag ci ay taskatu xibaar dañoo xamante ne kii di Daba Ndiaye jëkkëram joojee da ko wax rek ngir mu jugee Dakar dem sëyi foofee nga xam ne moo di Fuuta waaye moom nag di Daba Ndiaye nangul li ni mel waaye ba tey nag amaguñu ay kaddu Daba Ndiaye kaddu jëkkëram lañ am ak ñi nga xam ne ñoo leen jege ñenn ñi nag nee nañ moom mairie Daba Ndiaye xaalis ko dugaloon ci sëy bi ndaxte 30 millions kuñ ko jox ak Range Rover buñ la waxee sëy war ngaa sëyi waaye ñenn ñi sax moom mii di Daba Ndiaye jëkkër ji ne woon na Fouta ndax ku nekk Dakar yor fi liggéeyam yor fi ay waajuram yor fi léppam est-ce que kooku waxaale woon ngeen ngeen daal di pare daal di dem sëyi lu ci mënta am ba mënt ci am bi lépp sëy daal moom daal tas na te nag tas bi nag ñoo ci bokk yam di fàttali rek nag kii nga xam ne moo di jëkkëru Daba Ndiaye mosuñoo gisante maanaam Daba Ndiaye moomu ba ko jëkkër ji takkee ba tey mosu koo teg bët ndax moom mais di jëkkëram nekk foofee ca États-Unis di tut am li nga xam ne moo di këyit rek pour dugg Sénégal appartement mu koy fay waaye ñenn ñi nag nee nañ ki nga xam ne moo di Daba Ndiaye kër yaayam ak papaam la nekkoon lu ci mënti am ba mën ci am daal dañuy jàll ci leneen rek fas yéene leen toppal yeneen i xibaar te nag di xaar lenn rek lu ci bi lépp xibaar ñu daal leen koy taataana dañuy des ci wàllub siiw ndaxte ki nga xam ne moo di Don Diego lañu tëj ci lu tollook juróom benn juróom benn weer ci kaso bi ak li nga xam ne moo di sursis moom mee nag di Don jégo ay saaga yu mu defoon publiquement moo ko yóbbee li ne tembe la kon nag fi mu toll tembe nag mu mel ni doon jéegoon nekkoon animateur foofee sa 2STV mi ngi ci loxol yoon. wax lii wax la sa des waaye nag bu ñu jógee lii dañuy daal di dem ci lee fan la ñuy jëm nag mooy ci équipe nationale de Sénégal rawatina sélection bi nga xam ne ki nga xam ne moo di Aliou Cissé jot na ko def ci ñi nga xam ne ñoo war a dem ca jongante ba di am foofee ca Qatar ginnaaw nag ba liste 26 joueurs yi génnee gisuñu kii di nga xam ne mooy suñu latéral gauche ñu bëgg ko loolu sopp ko loolu mu nekk koo xamante ni mën na lu muy def di wuyoo si turu Saliou Cissé moom nag Saliou Cissé mujjul bokk ci ñi nga xam ne ñoo war dem foofee ca Qatar moom nag ki nga xam ne gannaawam di Bamba Kassé dañu woon ni daak xamul dara dafa néel ndaxte nan la joueur boo xamante ni mooy mel ni Saliou Ciss nekk meilleur latéral gauche gagné li nga xam ne moo di coupe moo di kan ci année bu ñu nekk mënul sax am club waaye nag ñenn ñi nag jàpp nañu crédit Aliou rek mënoon naa jël ki nga xam ne moo di Saliou Ciss daal koy yóbbu foofee ja Qatar waaye nag ñenn ñi jàpp nañu joueur coupe du monde la ñu jëm te nekkul ay foo te nag joueur mënoo toog sans club san entraînement ba pare bëgga dem jongante li nga xam ne moo di coupe du monde waaye nag leen rek lañ mën a wax mooy moom mais di Saliou su ñu ngi koy ñaanal carrière incha allah euh, mu jeexal ko ci jàmmaka ak salaam te nag mu gaaw am club te gaaw nag def li nga xam ne moom moo war te yàlla nag yeggal ko foo xamante ni yàq du ko fa daal di fekk. dañuy jóge Ndakaaru daal di dem foofee ca Mbour. ndax ah, Mbour nag foofee ci hôpitalu Grand Mbour la ab nouveau ne maanaam ku nga xam ne moo di door di ah, moo ngi door li gane àdduna daal di ñàkk bakkanam moom nag bañ koo saytoo ba saytuwaat ko dañoo ne lu tax mu ñàkk bakkanam mooy maanaam ñoo ñooñee di sage-femme ak ñooñee nga xam ni bu ab liir juddoo ñoo ko war a toppoo ñoo ko war a toppatoo maanaam def ci moom la ca war ci maanaam ndax nit buy doog gane si àdduna bu juddoo ci hôpital ba am na yenn yoo xamante ne da ko ko war a def ngir rek aar te nag moo koy permettre nag mu nekk ci jàmm ak salaam moom nag bi lépp liir jàpp nañ ne rek dafa daal di faatu ndaxte nag ñi waroon toppatoo ba liir boobee génn ci hôpital beeg jàmm ak yaayam ba ko jur toppatoo wuñ ko nag ba tax na bi lépp liir ñàkk na bakkanam foofee ci hôpital bu Grand Mbour xibaar yi nag moo ko xëy daal di ñu koy baaxaat ñun tam ñu taataan leen ko fii seen chaîne YouTube SENactu TV waaye nag dañuy delluwaat tuuti ñëw ci sélection Aliou ndax ki nga xam ni moo di euh, Jacobs nga xam ne dañ ko woo foofee fii nii ci sélection bi pour mu war a dem bokk ca jangante boobee di am ca Qatar dafa am ab bénéfice ndaxte ki nga xam ne moo di Villarreal di ab équipe rek dafa am ay mbakkuus yu mu ko daal di dencal ba tax na nag moom mais di nga xam ni moo di su am na loo xamante ni nag bi lépp sélection ci Sénégal may na ko te dooragul sax li nga xam ne moo di coupe du monde waaye dañuy des ci célébrité yi ndax ki nga xam ne moo di Dieyla Gueye nekkoon fi ab nekk fi ab artiste di ab waykat nag bu respecté boppam boo xamante ne képp rek ku nekk ci Sénégal ndaw nga ko ngir talam ngir teeyam mais ndaw nga ko rek ngir xeetu solinam ak baat bu neexam saa yu woowee rek nga yaakaar ni la diva bu mag bi Coumba Gawlo moo way moom mais di Dieyla nag dañ koy takk ndiki dimanche ginnaaw nag euh, ab euh, vidéo bu fi jotoon fuite rek mu nekkoon ak nga xam ne moo di dan waaye def ñu dara lu ñaaw ñoo toogoon rek ñu bëggoon yàq der nekk di yàq deram moom mais nag di Dieyla Gaye dañ koy takk dañ ko takk ndiki tey di dimanche bi ki nga xam ne moo di nag Mayacine moo koy takk Mayacine nag boo leen ko déggee war ngeen koo xam ndax ki moo nekk ab manager ci ki nga xam ne moo di Dieyla Gueye moom nag manager manager moo ko daal di takk ndiki tey waaye nag mbokki internet yi tey nag xibaar yi duñ koy ndar keppee nekk na lu tiis nekk na ak ndakar te nag képp kuy yaay wala sax képp kuy jigéen wala nga doone te bàyyi boo ko déggee di nga am lu la metti ndaxte ab liir daal lañu fekk ko fekkee ñoom daal dañoo fekk daal ñu daal koy faat waaye buñ ko fàttee benn xaaju yaram ba daal dañ fa daal di fekk li ni mel nag mi ngi xewee fii ci réew bu Sénégal bokki internet yi seen TV tey nag li leen indiloon ci di gën a ci xibaar yi dig daje ëllëg waaye laata loolu woy leen di abonné te bu leen fàtte appuyé wu ci cloche de notification pour di mën a am suñu ay vidéo à la prochaine ci yeneen rubrique fi seen chaîne YouTube SENactu TV